Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi fii tey ci euh, mairie bu Tivaouane lan moo fi xew euh, li fi daan xew bu njëkk rek Demba Diop Sy di ko def ay at yu baree baree baree bari mooy taalibi yi nga xamante ni Seydi Hadj Malick waxoon na benn bis ay njabootam ni leen am naa yeneen i njaboot seen i doom yi bàyyi lañ ba nu ko gëstoo ba ci biir dañoo xam ni ndonga daara yi la Seydi Hadj Malick di wax Demba Diop Sy nag wuuti leen ci tabaarakallaahu ren mu joxe deux mille deux cent mbubu boo ko xamul ci tubaab mooy ñaari junni ak ñeenti téeméeri mbubu mu séddale ko taalibe yi tabarakallahu nag dañ ciy déglu ki nga xamante ni mooy président Abdou Aziz mu wax ñu situation bi nan la demee président. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar xam naa damay jël kaddu rek pour ubbil sunu mag El Hadj Ndiawar Gueye parce que ñun li tax ñu ci jël kaddu dañu bokk ci commission religieuse jiite commission artisanale. yàlla dogal aussi vraiment ñaw yi yàlla dogal ñu koy teg suñu loxo ñu koy organiser ak tailleur yi nekk biir Tivaouane comme ni nga ko waxee rek El ni ñaw yi boo doon ñaata at la ko jóob ci def mënoo ko wàññi donc tey répétition rek la defaat mu ñaw lu toll ci ñaari junni yére ak ak ñaar téeméer pour war ko jébal ay sëriñu daara ñu jox ay ndongo xëy na nag ren peut sax am nañu benn retard bu ndaw mais yooyu yëpp aussi moo ko àdduna ñoo ànd en tout cas ñi ngi sant di gërëm bu baax a baax ci wàllu organisation bi nga xamante nii def nañ ko ci man plus particulièrement damay remercier tailleur ndax ñaw yi bi ñu koy jot fekk na tailleur yi Tivaouane yëpp engagé mais bi ma leen ko waxee dañ ni ma comme ñun ñoo ko ñëw ak mu jot su ñëwoon sax une semaine avant dañ koy ñaw donc loolu aussi reconnaissance la boo xamante nii war nañ ko wax aussi pour ñëpp dégg ko di wax ni tamit aussi liggéey bi jaamu yàlla moo ci nekk parce que job si mi koy def ñun aussi bu ñu ko mënoon dañ koy def donc nañu ci gën a am passif rek gën ci am taxawaay di sant sëriñu daara yi seen président laa koy jaarale Mouhamed Diop El Hadj aussi di leen sant di sant ñoom Ousseynou Ndiaye moom mi nga xamante ne organisation bi moo koy boobu ba léegi di sant ma jigéen ak ñi fi nekk ñëpp su ma leen limee ñoom ñaar rek yóbbaale naa ñëpp. El Hadj ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooloo mi fi nekk ñëpp di leen sant leen ñaanal yàlla di nuyu sëriñu daara yi ndax lii lépp yàlla ak ñoom moo tax ndax bu ñuy wax taalibe dafa fekk sëriñ nekk fa bu fa sëriñ nekkul taalibe nekku fa. kon dañuy gërëm sëriñu daara yifit fi leen ñaanal yàlla fan wu gudd sutura wér muj ko rafet di ñaanal taalibe yi tamit yàlla may leen barke ndax barke mooy tungoom xam-xam bu barke amul yar amul teggin amul xam-xam amul solo ñuy gërëm nag Mamadou Sall ak Abdou asis Lo mii nga xamante ni bu des commission religieuses, ça le ko yor lépp lu jëm ci artisan Abdou Assis mii moo ko yor ba pare wàññeekuwaat bokkaat ca commission ba ñuy gërëm nak, ki nga xamante ni initié, ko initié dañuy gërëm ñaar Demba Diop si en tant que njaboot Sëriñ Hadji Malik, en tant que njaboot Sëriñ Mansour ndax def na ko ay ati ati ati ati at te déggul député maire boobu ngërëm mooy ngërëm di nga xamante ni moo ci njëkk ñaareelu ngërëm bi tamit mooy gërëm député waaw ndax bi mu ko defee tey fa tabaarakallaahu tey tamit dañ koy ñaan yàlla mu koy gën a man rek ndax nii ko Abdou Aziz ku ne xam na ni jamono xat na fii nuy waxante ak yéen nii sax nekku fi wante li mu fiy ñàkk ñàkk ñàkk nekk avant muy dem organiser na ko teg ko ci loxo yi ñii ni ko Abdou waxee yàgg na alaaj mbeng mii moo daan def bu ki jotee mu wër ci kër yi ku am mbubb mu jox ko ko mu ñaw ko fóot ko defar ko ba mu sollicité Jóob ci lakka ni lii na dakk bàyyil yalwaan ko bàyyil yalwaan wi at mu nekk may bàyyu xale yi dinaa koy def loolu nag ku ko def dafa toll rek innama nutimukum li wajhillah laa nuridu minkum jaza wala sukur lii may def day yàlla tax ma koy def ku ma gërëm ak ku ma xas ak ku ma saagalaay ma def man daal yàlla tax may def in lam takun rabbaana alayya fala ubaali yow yàlla daal lii may def boo ko yëgee keneen ku ko yëgul sama yoon nekku ci kon wane na ni bu doon puukare du mel nii mais tamit nii la ko bëggee moom ñu ñëw ndànk sëriñu daara yi teew taalibe yi teew ñu jox leen ko mu dawal ko ci yiw alaaxira dañu wax ni alaaxira nangu na fret mais nanguwul bagage accompagnement booy dugg bàmmeel dara du fa dugg mais loo jiital boo àggee fekk ko fa mm. lii nag bokk na ci yu jóg ci di jiital te da booy seet nag xëy na lii moom mook bis bu nek la amul yëre talibé amul ki ku ne xamna ni job fi fu mu nek boko beugé xam la xol ci talibey fo ka fek lu bon bon bon bon di fo fek ñaar fukki talibé du dara lu yaakar ko rek kon yàlla nak yàlla defal yiw bu lolou ye ngi nuyu mbolom mi yëpp ci touru serigne daara yi nek ci communauté awone waaye ci turu sëriñ daara yi nekk ci département Tivaouane ci turu Mbaye Diop mi nga xam ne moom mooy président départemental waaye ci sama tur euh, oustaz Mouhamed Diop nga xam ne man maay président wu communal bi e, fa tabarakallahu di sant yàlla di sant itam nag ak di gërëm sunu sëriñ euh, sunu sunu magum taalube mi nga xam ne moo waral lii lépp te mooy maam alxaaji Malick si moom mi nga xam ne moo sañ ci dëkk bii euh, saxal fi njàngum alxuraan ak njàngaleem alxuraan nu ñëw di jàng alxuraan ba yàlla dogal ñu itam ñu ber suñuy daara di jaar ci yoon wa mu jaaroon di jàngale loolu moo waral lii tey kon moom lañuy ñuy a sant gannaaw buñ ñu sant yàlla gërëm ko di ko ñaanal yàlla li mu fi doon liggéey fii ci Tiwaawoon ak Sénégal ak àdduna bi yëpp yàlla na ko ko yàlla fay ak mbooleem ñi ko ci doon jàppale bu loolu wéyee nag lii neex na ci nun lool nag ndax comme ni ko suñu papa ju baax di waxee alxaaji Njawar te mooy euh, Jóob si yàgg na koo def ay ati at te boobu nekkul maire waaw kon bu mu nekkee maire dañuy gën a yaakaar ne la mu daan def da koy yokk waaye du ko wàññi waaye nag neex na ci nun ndax lii tey bu fekkoon ne ab jàmbur moo jege bitim réew din ko defal dina neex lool waaye nag koo xam ne ndongab daara la comme ñun bu ñëwee dellu ci daara pour njukkal daara di teral sëriñ daara yi teral ndongay daara yi foofu nag dafa gën a neex ci ñun bu baax a baax a baax te ku wax Jóob si wax daara te nag jaboot boo bëggee xaritoog moom da ngay fexe xaritoog doom ja waaw ku xaritoog doom yi jaboot ah xaritoog jaboot nun nag suñu ndongo yi képp ku xaritoog ñoom ah nuy dañuy xaritoog yow tey dañ lay jàpp Jóob si dafa jàpp suñuy ndongo def leen xarit kon nuy dañuy jàpp Jóob si def ko xarit mu def ko wëlëre def ànd ak moom ci lépp nag lii daal kontaan nañ ci bu baax a baax tabarakallaahu di ñaan yàlla na ko yàgg a def at mu ñëw lu mu ci man rek yàlla ci yàlla na ko yàlla man loolu ko ëpp waaye nag di sant itam di gërëm mbooloo mii nga xam ne ñoo fi teew ci mooy waa mairie bi ku mel ne loom mi ak Mouhamed Sall comme ni mu ko waxee ak mbooleem ñi leen di jàppale ci wàllu mairie bi ndax Diop si manoon naa baax génne teraanga ji jaarale ko ci yéen mu demee neneen waaye yéen yàqu leen ci dara téyewu leen ci dara yaatal ngeen lépp ñëpp dinañ jot seen wàll incha allah tabaaraka wa taala noonu loolu moo doon kaddu yi nga xamante ni moom la waa kër Demba Diop si borom sabadoor bi doon sànni euh, waaye nag du dem ba jeexal sant nu Demba Diop si borom sabadoor bi nga xamante ni taalibe yi ñu ñëpp la ko si Hadji malik dénk kon bu ñu ci Demba Diop si wuutoo ñun borom kër yi nga xamante ni léeg-léeg taalibe daw dugg suñu kër dañuy sant Demba Diop si ndax wuutu nañu ci ñoom ku ne xam na ni ñaari junniy taalibe ak ñeenti téeméer ku leen xottil am na ñoo ci wuutu Seydi Hadji Malick nga ci njëkke ak njabootam waaye am na ay borom kër aussi yoo ci jiital waaye duñu dem te santu ni nga xam mooy alaaji Sall bi jiite commission bi Abdou Aziz Lo alhaaji Jawhar Gaye Pape Tooro waaye nu bàyyi Usu Ndiaye ñoom ñi nga xam ñoo nekk ci kanam di ko defar ba mu baax waaye ñu ngi sant aussi ki nga xamante ni mooy mange ak képp ku bokk ci CPG ak ñi nga xamante ni ñooy jàppale Demba Diop si ci liggéey bi ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm ñu ngi leen di sant di ko ñaanal yàlla nag yàlla ko gën a mën at yu bare bare bare bare bari yàlla defal ko gudd fan ak wér te mébét mi mu am ci Tiwaawan yalla defal ko ko ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm jërëngeen